li nu yàggoon doon dox rek te <clears throat> di ko ñaan mooy ñu maynu loo xam ne nii vraiment tamit dinañu mën a permettre li nu amoon rëq-rëq ak ay manquement lépp ci suñu marché file ak tabaski nu mën ko combler ak euh, site bi nga xam ne tamit euh, ci la ñu war a dem te nga xam ne commerce tamit euh, ni muy demee toujours dafa bëri ay loo xamante nii tamit ay liggéey la yoo xam ne dafay bëri loo xam ne nii ay détails la ñu noonu loolu comme ci ni mu jàmpe nii ak euh, fi jamono toll ñu noonu nañu nu may fii ba tabaski mu nekkoon nag loo xam ne buñ julee ba pare mu nekkoon nag loo xam ne ku ne xam ne décision moom état yàgg na ko jël bu yàgg yàgg yàgg ñu nekkoon ci doon ñaan waaye état ci yër yërmandeem ak it euh, téye njabootam moom moo tax tey jii depuis ci suba depuis fan yi yëpp noo ngi jege sunu préfet ak euh, sunu ministre di waxtaan te malgré xëy na waxtaanu nit ki li mu bëgg ak xëy na mu xaw a jafe ci moom mën na am nu mu impacté ci moom waaye li ëpp solo daal tey mooy sant nañu d'abord président de la république bi nga xamante ne ni yaakaar ji nu amoon ba toog ak moom ci palais ba mu jël décision ne dina defar marché bi décision bi mu wonee tey jii wane na ne fàttewul njabootam mu ngi taxawi njabootam. est-ce que di ngeen respecté bu baax di di di gërëm bu baax. monsieur le ministre bii toog ak sunu grand sëriñ bii nga xamante ne nii depuis nu fi nekkee ba léegi di sëñ Pape lu mu man ak lu mu xalaat def na ko. nuy beral nag nuyoo sunu kilifa ak sunu kilifaay diine yi waaye nuy beral nuyoo xalif général Kourmoul mun Mountakha Mbacké ak représentant bi nga xamante ne nii mooy yor kàddoom muy Serigne Bass Abdou Khadre ndax léegi rek laa coupé ak moom képp kuy sénégalais doon kilifa diggante fan yi yëpp loo man ci lu baax pour waa Sandaga am jàmm yaa ngi ci lépp lu nu talal sunu loxo ba xas ko wax dara ci àdduna du ko dindi tabaski gii ñu waxanteeg ñoom ba ñu may nu ko mm-hmm. ci kattanu yàlla bépp journaliste bu ñëwaat fii di waxaat ci mbirum Sandaga poñ ya nga fi ñëw di ko lijjanti mooy taxawaayu Sandaga ak taaru Sandaga ak ëllëgu Sandaga ak cadre de bi nga xam ne tamit ministre bi moom li ko yàlla dénk tamit yàgg na di ko wax mais jàpp naa cadre de bi tamit Sénégal yëpp Sénégal yëpp ñoo ko war a partagé ñun ñëpp ci la ñuy dox respect incha allahu lépp lu nu wax tey ji déclaration bi nu def nii tey déclaration bu officielle la boo xam ne ñun ak commerçant yi Sandaga yëpp noo ci bokk ànd noo ci bokk d'accord que ne bu nu julligee ba ñëw danañu fexe incha allahu nu ñu demee ca sit ba li ci des ci ay liggéey nag am nañu ci ñoom yaakaar wóolu nañu leen lépp loo xamante nii xalaat nañu ne bu nu taxawaatee tey jii pour projet bi war a taxaw lépp xalaat na nañu ne dinañ ko liggéey ak ñoom ndax wan nañu nu ko nag ndax lu mel nii tey ku la ko may rek jàpp naa ne bu fekkee tamit diggaat na la leen di nga mën a jàpp ci loolu waaye lépp solo daal mooy na ñëpp dellu ci seen liggéey. te nu continuer yaakaar état te li nu yaakaar ci sunu sunu marché tamit sama borom dimbali nu ci ba ni nu ko bëggee ak ni nu ko yaakaare yàlla jàppale nu ci.